yi nga xamante ni dafay defaraat sax yaq yaq yoy am ndax goor bu tamé moy tamu fo bu yagge de dem ba dolem ak ngóoram ak katam seem day wàññeeku ba fay dem ba conséquence yi muy jur day dem ba indi rétrécissement de la taille du pénis goor ñu bari seen dolé seen góor seen katam sey dafa delu ginaaw du magati du yokati du guddati du rëyati wala seen soxna dañu érectionné bu mu jog ba soxna ci gis ko sax mu dal des pères lolu xam ngeen gatcha la kon nak ñoo ngi di wax ni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 mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa univers bio tey nag dañ leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génne ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak jinne ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale waa ñun waa bi bio ku soxla sunu numéro nag dangay def 77 160 93 93 sama mbokk yi dëkk Touba te soxla woon produit mauvaise haleine bi numéro téléphone bi nag mooy 76 283 98 69 Touba Jannatul Maxwa ci wetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni feebar bii di feebaru ni nekk feebar bi nga xam ne day dal góor bëri na ci góor ñi xam ne dafa leen dal maanaam dafay jàpp seen Ablaye Ndiaye muy dëng Ablaye Ndiaye bu dëng nag mooy Ablaye Ndiaye bu jàdd gauche wala mu jàdd droite wala mu sëgg maanaam daal day sëgg ba bu bu sëyee sax day gaañ ko jigéen wala boog du mën a jóg normal maanaam day gaaw a peer day gaaw a dégonfler te du dëgër ndax tuyau bu dëng du am pression te ndoxu sëyukaay bi itam du nekk qualité bu baax infection da koy waral ak góor guy fowe boppam di jël sa awra di ko bës ba sa ndoxu sëyukaay génn di fowe sa bopp loolu moo tudd mballu lu dangereux la ak borom caleçon yu xat yi te seere ni ñàpp ci seen yaram loolu baaxul rawatina nag ñi daan def sport de combat ba ñu jël ci ko kon traitement bi koy faat mu ngi nii ay pommade la comme ni ngeen ko gisee univers bio bu Serigne Lamine Bara Fall nekk Dakar Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Bara boo leen di ngeen ci jot tawféex rek la dana yokk doole yokk ngóore bi yokk kattan gi maanaam daal lépp lu jëm ci télé ak awra bu dëgër bi nga xamante ni daal du jàdd fenn macha allah dana jub coach nga ciy gis sa bopp ki nga ko sekkal di ci gis boppam macha allah kon ma conseillé la xefee la am pommade bi buñ la ko digalee jox la nuñ koy jëfandikoo boo ko jëfandik jëfandikoo lépp dina am tawféex 77 169 45 45 77 169 45 45 contacté ñu ci whatsapp wala nga woo ñu directement ñu expliqué la nan ak naka boo ko jëfandikoo lépp baax géejawaay arrêt Doubalès kër Serigne Lamine Bara Fall macha allah.